jafe-jafe ba ñii di jël ay gaal di mbëkk euh, nit ñi amay jafe-jafe dañuy fayee seen ay facture courant bi cher inflation bi yokku mhm. sénégalais yi di góorgóorlu ah fayum euh, facture yi metti lool ba ñu ay nit sax di ay pétition loolu yëpp tey euh, mu am benn rendez-vous historique mooy toujours fi ñuy tànnee ki nga xam ne mooy njiital réewu Sénégal war a def la politique de la nation. tànn boobu nag moom la ñu jublu nii. te mu mën a nekk nag sénégalais am possibilité tourner cette page de 12 ans. Euh, de ce régime bi nga xam ni jàpp nañu ni moom mooy responsable de de de situation bi nit ñu di jundu euh, ci tànk yooyu nag ci la am ay violation répétées. de ce de choix là mooy ay euh, benn groupe boo xamante ne dañu bokk ci Sénégal en l'occurrence Ousmane Sonko Partem Pastef ak coalition Euh, Sonko président bi ma bokk euh, am seen candidat ak seen yéene bokk ko ak ay millions de sénégalais ñu ne leen euh, yéen kat amu leen sañ-sañu participer ci élection boobu li may njëkk a wax bala may wax ci DGE mooy administration Néné Aïcha mhm. suma grand frère lay du ma bàyyi ma fen ndax man doomu fonctionnaire la mhm. naa ci la màggee yaroo ci suñu ay papa liggéeyal Sénégal administration ñëpp xam nañ ni pouvoir public la fi nekkal ñëpp xam nañ ni état central la fi nekkal commandement mhm. mais je pense quand même que administration fii mu egg ak acte yi mu posé musta am ci histoire du Sénégal mhm. parce que boo demee ba nga xamante ne xam nañ ni administration mooy organiser élection moom moo koy superviser moom mooy nekk au début mhm. et à la fin du processus Euh, ay ay ay réclamation yàgg na am mais ay taxawaay yu am solo yu dalal xelu askan bi tamit yàgg na am ci Sénégal hmm. mais fii DGE dem ba nga xam ni dafa ñëw substituer boppam hmm. remplacer organe bi nga xam ni mooy conseil constitutionnel mu jël place organe boobu di tànn kan moo nekk candidat ak kan moo nekkul candidat ji ko argumenté nag dinañ ci ñëw ci kanam hmm. mais li ma ci njëkk a wax rek mooy man dama seetlu loo xam ni moom la régime mu président Macky Sall def te muy loo xam ni dafa grave dafa dangereux. Mm-hmm. mooy dafa violer constitution Sénégal ndax constitution Sénégal moom moo wax ne ci préambule bi déjà la wax ne sénégalais yépp am nañ sañ-sañu bokk ci élection mm-hmm. euh, euh, yu nga xam ni dañuy fal bépp xeetu élection nag am nañ sañ-sañu bokk ci am nañ sañ-sañu organiser wu te réew mi nit ñi ci façon démocratique la ñuy jotee réew mi mooy ci ay élection la ay nit di tànn ku leen toogal ak ku leen toogalul. donc su fekkente ne ñëw nañu mu am benn pàcc Sénégal moo xam ne mënu ma ko xayma ñaata million lañu jàpp nañ ni bëri nañu. Mhm. parce que ñoo xam ni bi ñu bokkee deux mille dix neuf ñoo jëloon troisième. ñoo xam ni boobu ba léegi seen électorat mu ngi yokku ñu boddi leen. loolu déjà c'est une violation de la constitution parce que constitution permettrul benn état mu jël tout une toute une nation tout un peuple composé d'hommes et de femmes de toutes nas euh, euh, ethnies ñu dëkk ci région Sénégal yëpp ñu ne leen yéen du ngeen bokk yéen du ngeen exprimer wu librement au suffrage universel du 24 du 25 février au moment ñëpp ñu ngi doon xaar des élections libres et transparentes et inclusives au moment où ñëpp ñu ngi doon xaar quand même euh, jéego déjà premièrement mooy président Macky Sall remaniement bii mujjee am jàpp nañu dina jël une autorité indépendante teg ko au minimum sax pour wane ni moom génnee na loxoom ci mbiru élection mais on voit que defuñu loolu ministère de l'intérieur bi ñëpp doon ŋàññ te mu nekk ñoom ñoo ko wax colonne vertébrale parce que Antoine Diome moo ko wax bi muy joxee lenge yi si Sidiki Kaba ne ko mooy colonne vertébralu euh, état bi te ñu jàppoon ni Sénégal fi mu toll ci ndool hmm. colonne vertébrale waroon naa mën a doon éducation nekk agriculture nekk leneen lu dul commandement territorial parce que foog naa li ne foofu ci ay fonctionnaires c'est un minimum par rapport ak góorgóorlu yi nga xamante ne ce sont des millions de sénégalais yu yor seen bopp mais ñoom noonu lañ ko gisee mhm. ñu jàngat ci li DGE def mu nekk un précédent extrêmement dangereux dans quel sens dangereux parce que mënu ma ñu accepter ci état mhm. nga nekk yow arbitre nekk juge nekk parti DGE dañu far administration comme li ma la wax yàgg nañu far mais quand même y a eu des grands hommes dans cette administration là y a eu des grands hommes yi nga xam ne bu Sénégal taxawee rek ñoom fexe nañu ba ci élection yi fi am yépp ñu am taxawaay boo xam ne kenn du ne Sénégal bu ëllëgee dafay basculer ndax responsabilité bi ñu am boo gisee un DG qui se permet dans un premier temps de refuser les fiches de parrainage sous motif que kii dañu ne nekkul ci fichier électoral bi loolu déjà du prérogative bu DG e. parce que kenn kese moo mën a xam kan mooy électeur kan moo ko nekkul mooy conseil constitutionnel. conseil constitutionnel. déjà ya e def loolu. Mhm. yemul ci loolu Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ak ay avocats am saisir la justice justice jox ko ndam le juge ci boppam signifier ko au préfet de Ziguinchor préfet de Ziguinchor bu ko jotee moom daf koy signifier le gouverneur qui le signifie à son autorité supérieure mooy le ministre de l'intérieur donc DGE yëpp na décision de justice. alors justement mais, la, la, la question DGE se permet. la, la question s'était posée euh, bu ñu ko bu ñu bu ñu refusé les Ayib Daffé euh, euh, yooyu les fiches ndax peut-être euh, décision bi DGE jot na ko parce que c'est une administration et normalement dafa war a dem euh, par étape mais avec le communiqué qu'on a reçu aujourd'hui on a vu que la raison est tout autre dafa li am démb dafa dafa dafa dafa extraordinaire parce que déjà la DGE nee naa la encore damay ñëwaat ci seen violation de la constitution. Mhm. constitution moom moo wax tous les sénégalais on libre accès au service public. yow man euh, monsieur Ndaw euh, euh, grand grand grand laay. Mhm. seen i saa ñëpp am na droit. ñoo yem ci service public. bu ñu demee ci lii service public dañu war a accéder ñu ñëw un un député. Mhm. un député ñëw ñu ne ko doo dugg. un huissier de justice ñëw ñu ne ko doo dugg violation foofu la tàmbalee. parce que teguñu ko fenn parce que nag je suis désolé de le dire ñun on a au moins une dizaine de candidats yoo xam ne kenn vérifié wul seen i pièces dañoo ñëw joxe seen i kayit jox nañ leen te loolu dinañ ko leeral après. très bien pour wane nit ñi comment ce caractère de ces élections c' pas sérieux mm-hmm. on a voulu leur prendre dans leur piège. parce que fii leen taxaw naan da indi ay mandataires da indi lii da indi lii ñun yóbbu nañu dix nekkuñu sax Sénégal te jël nañ jël nañ ay fiche ñu bëgg ko empêcher mhm. un candidat représentatif fu may daanelee mooy DGE fu ma la wax ni DGE li mu def dem mhm. mooy bi ñu ko notifié parce que huissier bi daf ko notifié la décision de la justice mu am audace di interpréter naan euh, décision de la justice bi ñu ko indil euh, mënagul mënagu koo appliquer parce que état dafa def recours te loolu moom bu ko def bu ko waxee dafay violer li ñuy wax euh, article L 47 alinéa 4 du code électoral bi nga xamante ne dafa wax ni bépp décision bu jógee ci autorité yi bu ñëwee ci loxo DGE daf koy appliquer immédiatement loolu yoon moom moo ko wax donc DGE mënul violer la loi ba pare di ko argumenter ba pare di ko justifier. très bien c'est un précédent très dangereux. alors euh, honorable DGE xam nañ ko ce n'est pas une structure euh, euh juridictionnelle euh, kii sax mu ngi koy wax euh, dafa nekk structure administrative boo xamante ne dafa war a conformer wu ci loi et ce qu'on a vu à Ziguinchor je pense que une décision de justice a été rendue est-ce que DGE nekkul en quelque sorte di violer cette loi-là. Ah, je crois que à l'entame de nos propos ñëpp. Mm. on a souhaité avoir un débat serein un débat de qualité. et on l'aura. incha allah rabi ci kattani sunu borom. Ah. Euh, moi je crois que vous avez créé cette plage parce que il faut ñu am am une bonne compréhension des émissions télé. Hmm. du pour ñun c'est pour c'est ce qui nous regarde et c'est qui nous regarde am na ñoo xam ne xamuñu te dañ bëgg a xam am na ñoo xam ne dañuy werante. bëgg lu leer am na ñoo xam dañu bëgg a renforcer wu am na ñoo xam dañu dañu xam nañ toog di ñu di mesurer suñ suñ niveau de maitrise de ce dison nous disons donc c'est du sérieux mmh. ce ne sont pas nos personnes qui doivent intéresser mais plutôt ce l'analyse bu ñuy war a def ah, la juste le droit est une science qu'on interprète ça veut tout avocat du am. Mm -hmm. alors ce qui s'est passé à Ziguinchor c'est quoi il y a une décision de justice il y a un recours c'est suspensif. oui mais sauf que dans ce cas. Euh, nga le problème qui se pose. des avocats ont soutenu que recours bi n'était pas suspensif. mais un avocat loolu la un avocat il interprète à sa manière. oui mais il dit la il maîtrise également les textes. pourquoi donc deux avocats. qui ont, leur fait, la même formation ont des avis divers sur un sujet donné lu tax ku ci nekk da ngay interpréter par rapport à tes intérêts par rapport à ce que tu défends que ñun Sénégal dañu toll foo xam ne tey dafa am loo xam ne suñu cër bu ñëwee dañ ko nañ xam ne lii ñu la loo xam ne c'est au-delà de nos personnes xam nga la droit dafa sew et cour suprême dafa war a gis nga tey cour suprême tey su su su su validé euh, la la décision de du juge Faye. de mm-hmm. Ziguinchor même bu nekkoon à un mois de l' élection le concerné dañ koy jox.